rendre un décret pour convoquer le corps électoral. Mhm. bu taxawee repousser les élections locales c'est parce que pareegul ministre de l'intérieur nee naa na moom ak ñi yeneen ministre ay simple pion Macky Sall nañ ay ndaw lañ amuñu benn coup les coups de franche amuñu benn responsabilité pour wax quoi que ce soit par rapport à cette situation c'est Macky Sall le seul et l'unique responsable bu élection am locale amul ba tey yii te nag ñu koy si interpellé ñun lañ ko waxoon démb passif li mu ko waxoon démb la koy wax ba tey jamono ji dañ ko dul mayati nag muy fowee sénégalais yi wala di fowee xalu sénégalais yi loolu dañ ko ko may te yaakaar naa ku wax apaisement ku wax jàmmi réew mi ci loolu rek la mën a nekk dama la wax ne la mhm. dëkk yu bëri yu tàkk fan yee si ginnaaw élection lañu tàkkee kon élection bu ko kenn tuutal en fait tuutal élection mooy tuutal nga ñi nga xam ne ñooy fal ci élection yi nga nit ki baatam rek la am tax kaay ma wax la njàpp tey ji nit ki nga xam ne tey ji loo bëgg mu gën la kaa jox mooy mu delloo la sa cër ak sa wàccuwaay xam nga sa wàccuwaay envers le peuple le pouvoir public c'est lan mooy ñu reconnaître yow citoyen nga yow ñu reconnaître ne yow yaa jël décision ak dans un contexte électoral le seul maître du jeu c'est le citoyen sénégalais man loolu laa bëgg nga dugal ñu dugal suñu bopp te di ko doxee moo gën tey jii Macky Sall tey jii kon bu ko neexee mën na fee toog deuxième mandat am jeex mu toogaat fi encore cinq ans gis dëkk boo xam moo ko taal Côte d'Ivoire Laurent Gbagbo du benn élection rek la am et pourtant il a fait dix ans là-bas il a fait deux pour une seule élection dëkk bi gis nga après trois mille morts loolu yàlla ko yàlla mu am Sénégal mais nañu waxte dëgg suñu biir waxte dëgg xam mooy lan ñu regarder les yeux dans les yeux Macky Sall moomul Sénégal ba mu fi ñëw di gane réew mi dafa fekk Sénégal nekk Sénégal te incha allah dina fi jóge Sénégal di continuer di nekk Sénégal il faut ñu ko comprendre ne homme politique yi fi nekk. yaakaar ne bu ñu fi nekkee tout va bien bu ñu fi jógee c'est le chaos il se en réalité c'est un manque de respect notoire on ne pas être 17 millions de sénégalais ñu kenn rek moo mën nekk ci réew mi pour la stabilité du pays et ni si n'est pas cette personne c'est le chaos c'est le Sénégal va plonger dans l'abîme je ne suis pas d'accord nañu respecter sénégalais yi te convoquer le corps électoral ñu respecter le calendrier républicain le calendrier na refonte def la refonte du fichier électoral le plus rapidement possible parce que 3 mois mën nañ ci def refonte du fichier électoral njàpp 3 mois pour man avant même la fin de l' année nañoo def la refonte du fichier organiser les élections avant décembre ku ko deful damaa yaakaar ni kooku bu jiixi jaaxi amee ci dëkk bi yaa fi indi te loolu mooy dëgg nag nañu def la refonte co du fichier électoral permettre aux primo votants les jeunes il bu fekkee Macky Sall mënta digérer ni 2 millions cinq dañoo nar a voter Ousmane Sonko moo tax du def refonte. mais pourquoi pourquoi Ousmane Sonko. y a d'autres euh, opposants qui sont là. waaw xam nga man dama lay wax li nga xam ne moom moom laa sentir mais dama ne li ma sentir mooy 2 millions cinq cent mille jeunes yi Ousmane Sonko lañ nar a voter la 2 millions cinq cent mille jeunes yooyu ak yeneen i millions de jeunes ñoo fi gën a taxaw jëmmal xeexu Ousmane Sonko loolu ku ko weddi da ngay foowee sa xel rek la preuve. ba ñuy dëgër dëgëral naan dañu jéem a jaay doole Ousmane Sonko ba ñu ñuy génne xam nga lu ñu koy taafantaloo waaye dafa ñu am ñu sonn moo tax mais ñu ngi noonu. Ah, donc kon donc donc kon vous vous reconnaissez que Ousmane Sonko moo lancé euh, yi gis injustice. les jeunes moo appelé à la révolte. jeunes yi gis injustice. ne injustice bi bis bu amee jëm ñoom seen biir kër lañ leen fekk naxasal leen ñu ñoo taxaw xeex. ak Macky Sall que lii du jàll la preuve bañ bàyyi Ousmane Sonko est-ce que dégg nga fi jeune bu génn tàkk est-ce que gis nga fi dégg bu def ay manifestation est-ce que dégg nga fi bu kenn naxee suñu xel maintenant par courtoisie nag man Ousmane Sonko kilifa la dina wax ni au laa même de sa personne mais jeunes yi dañoo sonn loolu waxu kilifa la wala waxu ko responsable la te Ousmane Sonko loolu rek la mën a waxee Ousmane Sonko mosut a oote ñu taal jamono ji nga xam ni ñu ngi ko téye ñoom mu nekk seen i loxo ñuy def seen théâtre ay mandat dama nekk mandat nangam sangam mais jamono jooju la sénégalais jóg est-ce que Ousmane Sonko dégg nga ko mu communiqué wax sénégalais yi nañ génne leen wala nangam sànq boo dafa dafa ne moomati boppam mais il faut ñu jëm ñëpp dama ne Ousmane te ñu koy assumer ñun à 300 pour cent dañ koy assumer mooy lan Macky Sall na delluwaat gestu peuple sénégal bi na dellu respecter jeunesse bi exigence jeunesse bi naka dem appliquer à la lettre satisfaire que revendication légitime yi na ko satisfaire maintenant bu am yeneen d'autres revendications yoo xam ne ça émane de leur de leur loolu ça ne nous regarde mais dama ni ku pour jàmmi réew mi pour jàmmi réew mi nañu dellu si réew mi pour jàmmi réew mi nañu dellu si sénégalais yi wax leen li nga xam ni moo war a nekk te ñu bàyyi seen tappale ak seen politique politicienne yi gis nga fi fan yi passé ay débats yoo xam ne war na fi war a mën a jóge loolu honoré wul réew mi d'accord maître te nag duñ ko seetaan waa maître léegi euh, sànq say biir argumentaire yaa ngi wax euh, par rapport que euh, jeunes yu ëpp ñu wàccoon sur le terrain kii di Ousmane Sonko moo taxoon ñu wàcc ñu gis ne aussi ces mêmes jeunes nga xam ne mun nañoo wax ne comme ce euh, si ay kàddu rek lay for ñoom euh, seen euh, homme politique bu ñu am yaakaar moo nekk kii di Ousmane Sonko sànq yaa ngi wax aussi par rapport ak manque d'emploi bi nga xam ne seetlu nañ ko bu baax au niveau de la jeunesse ces mêmes jeunes yooyu nga xam ne mun nañoo wax ne kum toll nii ils sont confrontés si wàllum xëy beek si seen wàllum situation économique ak yooyu ñoom ñoo demoon ces jours la wàcc sur le terrain. saccager ay commerce saccager ay édifices de l'État donc sur ce coup ban lecture ngay def ci ci ci ci yooyu est-ce que jeunes yooyu nga xam ne ñu ngi prétendre à des emplois bu ñuy demee bay lakk ay commerce yoo xam ne ba causer 2000 perte en emploi loolu yéen ban jàngat ngeen si am. Ndiaye bul juger jeunes yooyu. non je suis pas en train de juger moi je suis non non non non non. jeunes yooyu bu ñu déggee dañ la porter plainte. non xaaral rek. jeunes yooyu bu ñu la déggee dinañ la porter plainte yow yaa taxaw ne ñiy wàcc di xeexal Ousmane Sonko ñoo taal fi wala ñoo taal faa non non non non en réalité ji nga tey jii. mais maître. non xaaral rek xaaral rek dama lay tontu euh, dama lay tontu. xam naa ne xam naa ne tu es un avocat non non non non je je je <laughs> répare rien du tout je répare rien du tout lii neexul rien du tout je que tu es un grand avocat euh, ce n'est pas pour rien que nga nekk le porte-parole de PASTEF mais. si fay laa lay wax ce sont ces jeunes mm-hmm. ñoom la ñu gis ñu taal ay commerce voilà donc arrêtez de de de de de de manipuler l'opinion wala di may jaxase pour internet yi quand xam nga ko manipuler opinion bi <laughs> xam nga non dama loolu dama la koy wax sax man man waxuma waxuma la sax en tant que yow nga nekk sama visa mais en réalité ñi mën a opinion ba mbir mi commencé da nga fi ministre de l'intérieur bu def un communiqué une déclaration à la presse ko def ay terroristes nañu waaw wala déet mu ne ay xale yu am 14 ans la entre 14 ans ak 17 ans. il de terrorisme et aussi de force occulte aussi man kay déglu naa li wax. voilà may ma tontu rek. xam nga dama la euh, jéebaane gi dafa bari te kenn xamul kan nañ joxoñ baaraamu tuuma ministre bi ba mu waxee loolu muy wax ju ëpp dem na sax ba ni parents yar leen seen doom yi yar leen seen doom yi parce que xale yi am 14 ans bu ngeen yar ñu teggeel na nga mais ministre de la justice ne ay mbër yu raté la waxuñu ne ay yu toog yu raté yoo xam dañoo amul combat. ñoo taxaw génne taxaw di yàq moom moo ko wax de ñu génnaat ba sa biir ñu ni rëccu na li mu waxoon day recevoir na mbëri léegi nag fu ñu mën a yem ñu ni non non non ñi génnoon en réalité duñ ay pro Ousmane Sonko ñoom laay wax de ñoom réponse waa pouvoir bi dañ ne noonu ñi génnoon duñ ay pro une partie du peuple fatigué ñoo génn ñoo xeex nangam sangam soit. mais maître waaw xaaral rek xaaral c'est saccage c'est saccage loolu la lay wax du ma cautionner violence man mënuma cautionner saccage du ma def ma yow li nga bëgg mooy nga rattacher ces violences aux patriotes en réalité tel n'est pas le cas non damay wax rek dama ni jour le vendredi avant. la libération de Ousmane il faut aussi il faut aussi. il faut aussi il il faut aussi ñu encadrer waat débat bi. non dama ni yaa ma posé question mais ma yeggali. cité wu ma fi benn yoon dama gëm ni ñi génn xeex pour Ousmane Sonko ay patriote lañ. ah kon ñëpp nañ mooy ñi nga xam ne ay dañoo mbubboo nervi yor ay yat yor ay jaasi yor ay ko di ko tiire ci peuple bi ñooñu tey jii ñoom lu fi am lu fi am si njombe ñoo ko def ak certains éléments des forces de l'ordre à qui je rends même un hommage mérité parce que ñoom fexe nañ sax contenir pour éviter ay débordement di am mais ñoom ñoo jël seen nervi armé leen jusqu'au te nit ñi nag am nañ ay preuves xam nañ fi ñu fanaanoon la veille kër yi doon retranché wu di fa fanaan xam nañ sax ñaata lañ doon fay par par par journée am na sax ñu ne 15000 francs ak gis nañ sax benn responsable de l'APR génne leen a euh, euh, wax wax nañ sax ñoom si ñoom wax nañ ñu leen recruter induire leen en erreur ak xaalis bi ñu leen jox ak li ñu leen doon sant pour ñu def ko bañ léegi ba sa biir nag en réalité dañoo ressaisir gis ne ay seen Sénégal di ñëw di attaquer seen frère frère sénégalais loolu rafetul ci dëkk bi mais dama ne encore une fois je dis et je répète et ça je l'assume en toute responsabilité dama ne ñu génnoon di xeex pour contre l'injustice c'est des patriotes ñi génnoon di xeex pour que Ousmane Sonko ñu bañ ñu liquider en tant que adversaire politique ñooñu c'est des patriotes yow boo ci xàmmee kenn ci patriote ku génne dem ci benn euh, commerce taal ko wala génn dem ci benn station taal ko nga wax ma man xaw ma ci ñoom maintenant mouvement de foule boo gis man na rax parce que gàmm ko gis am na ñuy gàmm am na ñuy raasi démb mouvement de foule moo mel noonu. am na si ñoo xam ne peut-être seen fin ak seen sonnaay Madiambal Diagne kan moo koy région ba may wax damay wax koo xam te ne au moins man kooku je n'ai respect pour lui parce que il n'a aucun respect pour le Sénégal. pourquoi ne kooku je n'ai respect koo xam ne pare na pour taal réew mi. que kooku pare na pour andi guerre civile li am am Rwanda pare na mu am Sénégal kooku aw benn respect si moom parce que kooku en réalité wéccuwul treize wala quatorze personnes yi nga xam ne wàcc nañ liggéey mu wax. cité nga ko bu baax si contexte. bi ko waxee et votre leader qui parle de deuxième vague maître. da nga ma laaj ci Madiambal Diagne dinaa wax si suñu leader. te li mu wax moom du ragal. dama koy assumer man nii. man je suis sa parole autorisée pour wax ko ma jambal Diagne dama ni yaa xayti ji sénégalais yi koy jox micro bi wax sax en réalité damaa jàpp ne ñoo ñoo tooñ sénégalais yi. franchement il ne mérite plus qu'on lui donne cette occasion de s'adresser au peuple sénégalais de cette façon bu wallahi bu buñ ko téewul dina fi wax leneen loo xam ne après Sénégal yi dina jël seen responsabilité li muy def nii baaxul ci réew te dama rus su ma gisee muy waxee dama rus koo xam sa jaar-jaar burul saaga nit wala ñu saaga lu ma jëma jaaj mos sa bind si Ousmane Sonko lu baax lu bon rek lay bind ci moom benn yoon laa mos a gis mu bind si Ousmane Sonko le lendemain des élections présidentielles mu ni Ousmane Sonko mérite notre respect parce a du mérite xam nga kooku bañ nekk Ousmane Sonko mooy jël premier peut-être dafa nelaw moo tax mu xëy wax loolu mais dama ne Madiambal Diagne voici ces genre de personnes yi nga xam ni gis nga ñoo mënu taalum réew ba pare génn abal ñu réew mi te dama lay wax jamono ñu fiy wax ay Sonko Adji Sarr am na ñu doon taxaw ci plateau télévision